Toubacounda nag li ñu fi gën a ñàkk moom mooy ñàkk gis seen bopp ci parti bi da cee bokk toujours di ñu dañ na koy wax ak waxaat wax ak waxaat suñu bëgg nga président Macky mais cër bi nga war a am amoo ko cër bi war bu ñu war a jox Toubacounda joxuñ ko Toubacounda loolu moom lu dëkk bi yàgg di wax lu Toubacounda yàgg di kaas la taali boo ci waxee wax nañ ko nag benn yoon ñaari yoon ñetti yoon wax nañ ko ay yoon yoon yoon yoon yoon yoon euh, président Macky ay deux mille euh, dix huit euh, deux mille deux mille seize deux mille dix sept Euh, yaakaar naa waxoon na ne euh, jox na sama mbokki sëriñ yëpp jox na leen cër Tubaakaloor moo amagul cër te cër boobu gisaguñ ko ba léegi tout bi mujjee Kaolack nii rek euh, pas yoonam bi yoonam ba ci ginnaaw tout nekk nu mu doon def jaaroon fii waxoon na ko waxoon na ne dana lu ñu jox dégg ñàkk cër boobu it te te te te te te population bi gis ñu seen bopp dégg nga ci biir gouvernement bi lool bokk ci li nga xamante ni Tubaakaloor loolu gën a sanctionné. waaw te muy foo xamante yaakaaroon nañ ne dañ fi gañe bu baax a baax baax donte vote sanction am na euh, amoon nañ yaakaar ci ne dañuy gañe Touba Kaolack comme ni ñu gañe woon ci présidentielle yi mais ñàkk cër moom bokk na ci tax ñi ñi ñi ñu gën ko ñàkk waaw euh, di di interpellé waat son excellence monsieur le président de la République du Sénégal monsieur Macky mu gën a bàyyiwaat euh, quartier bi xel soo ko cité cité religieux yi ñu defar yëpp Touba Kaolack bokk ci waaw moo tax keroog boo déggee la ministre Diène Farba saa di wax. réer daf ma daf maa jàpp parce que lu luñ gën a ñàkk rek moom bokk na ci ñi li ñu li ñu ko xañ waaw parce que dégg nga euh, defar nañ site religieux yëpp leew na leew na ñaseen euh, kaneen Medina Baye mais tubaakaloo gisuñ seen bopp waaw euh, ñëwoon na fa ba lëtt se woon penc ma defoon fa dégg nga boobu Mbaye Diop ku ñu wax Mbaye Diop moo fi nekkoon fii directeur urbanisme bu Kaolack ñu ne fa def nañ ci ay waxtaan ay yoon ba defaroon ay plan ay plan yooyu da nga ci këyit ba léegi soo ko seetee nag kon day mel ne manque de considération dafa am ci diggante euh, gouvernement bi da nga ak Touba Kaolack da yooyu yëpp dañ ko dañ koy naqar ko wax muy nekk dëgg goo xamante ni xam nga tey su ko yàlla fa dogal da nga ne damaa bëgg Macky Sall damaa dama li liggéey da bëgg di ko wane te gisoo Touba Kaolack gisuñu seen bopp it da nga yaakaar naa da nga du neex a loolu bokk na ci li gën a metti population bi